bokk na si ñi dàq jàng ci Afrique bokk na ci concours yi mag ci àdduna bi di ci jël ay ay ay yu baax donc kon ñu bàyyi xel mooy waa Nigéria waa somali aussi seen candidat baax na waa Mali aussi seen candidat baax na kon mu ngi noon daal ñooñu daal yaakaar naa ni.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 jàng mu am solo jàng tontu nañ seen si juróomi laaj yi waaye itam ñu bàyyi xel que am na ñeneen ñoo xamante ne macha allah rawatina waa Nigéria parce que candidat Nigéria bi bokk na si ñu dàq jàng ci Afrique bokk na ci congrès gën a mag ci àdduna bi. aouzubillah bismillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah alhamdu wa shukru maan lillahi li ahraadi habli maramiya ya wahaabu doona anan wal takfini bi rasulillahi kulla bala wa an shiraaril xalqi wa razaya wal jinna wa sheytaana wal balaaya sadid lisaani nawir janaani safi amaani wazid baraay asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu mbokk yi seetaan seen télévision Futurs Médias ñi ngi amaat mbégte lool dellu siwaat di àndak ak ci seen émission bii nga xam ni mooy xew-xewu diine ji xew-xewu diine ji seen télévision Futurs Médias di leen ki amal ayu bés bu nekk ci waxtu wi di ci tàmbali nag gannaaw nuyoob lislaam boobu ziar mboolem kilifa diine yi fu nu mën a nekk ci biir réew mi ak bitim réew rawaate na fadilatu cheikh mouhamadul muntaka ñaan sunu borom yàggal ko fi lool mu ànd ak wér ak mucc ak njabootu cheikhul xadim gi yëpp ñaanal ay jëwliñam cheikh sidil muxtaar ba ci cheikh mohamad bachir ibnu cheikh abdul xaadir ñaanal kilifa diine ci réew mi yëpp ak turux wu nu mënti bokk ak mbooleem jullit yi nga xam ni itam ñi ngi ci réew mi rawaate na nag ñi nga xam ni saa su nekk dañuy safoo sunu émission bi xam naa tey waxtu wi xataay bi ak euh, xew-xew bu mag bi nga xam ni moom lañ ci fàttalikuwaat te mu am bërki démb rek di ndam di ndamaat ci lislaam di ndamaat euh, ci sunu réew mi waaye di ndamal alxuraan gi nga xam ni ñu ngi koy yàlla baaxe nañu ko fii ci réew mi ba tax na Eh, kilifa diine yi ni ma leen daan lime eh, tey jii dañ ci eh, jàpp ngànt incha allah ci biir émission bi nag ñoom ñëpp incha allah daanu gis seen bopp daanu xam ni lii mooy yilla gi ba tax na ñu ngi am mbégte lool dalal koo xam ni tey jii defalaat na Sénégal ndam lu mag ndam li mooy sëñ Cheikh moomu ngeen jàkkaar lool Diop jóge woon fii ci daaree sëñ Xaadim Ndiaye Rachid ci jàppandalu concours grand prix Senico ci njiital sëñ Moustapha Lo mi nga xam ni moo ko jiite ak sëñ Abdoulaye Dia bu Senico ak mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi yëngu ci alxuraan fii eh, ci réew mi ak ay waajuram seen ànd ñu dem ba Kenya concours boo xam ni lu mat ñaar fukki réew daje woon nañ fa di jogante ci alxuraanul karim yàlla defal ko ci ndam ndax bi doomu Nigéria jëlee premier moom moo ci topp jël deuxième gis ngeen léegi sunu réalisateur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 تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ما شاء الله ما شاء الله jërëjëf Serigne Cheikh muy njàng mu am solo moo xam ni duñu duñu duñu bett nag ndax euh, daara ji nga xam ni euh, fa nga jànge euh, sëñ Xaadim Njaay mii nekk jëwliñ ja moom bu ñu toppee ba ca waajur ba ca maam ya du jomme waaw faaw dañ naan rek lii war naa mën a nekk ndax waa kër sëñ bànji Njaay seen diggante ak Cheikhul Xadim ci alxuraanul karim sëñ bi saa su mësaan soxla ñu wonewaat kéemaan ci alxuraan ay maamam la ko daan sant sëñ Talla waaw daan daan na toog ba weeru koor des ñetti fan mu ni damaa bëgg kaamil te yéen ñii bu leen kenn rax waaw binduloon na leen sax kaamil ci benn bés kon kooku tey jii bu sëtam yore daara tàggat nit ba mu yegsi fii du nekk kéemaan dañ koy doolee ñaanal bu baax a baax sëñ Xaadim sëñ Xaadim Ndiaye. ak euh, sëñ Xaadim mi nga xam ni itam moom it euh, mi ngi ànd ak euh, sëñ Cheikh sëñ Cheikh waajuram bokk suñuy wëllëre ya nekk fële ca Italie. moom it ñi ngi koy ziar bu baax a baax sëñ Modou Diop ak ñoom ñoom sëñ Kosook ak mboolem waa Treviso waa itali gépp sax laay wax. naa ñu ngi ñuy seetaan. sëñ Talla ñëwaat nga sa kër gi sa kër gi nga xam ni naka jekk luy seetu askan wi la waaye nag taxawaayam ci alxuraanul karim ak taxawaay saa su lu mel nii amee ñu ngi koy fàttaliku ca ñoom soxna ndomboot eh, ca daaray Aïcha Adja Binta Mangop fii ci Grand Yoff ñoom soxna jaara ngom eh, sëriñ soxna Maymuna Lo mm. waa bu ñëwee ci góor ñi ñoom sëñ Mutaba ñoom ñëpp ba ci sëñ Cheikh mi naka jekk kër gi waaye naka jekk kër gi itam bi mu ubbee rek ñun tàmbale woon nañ fi émission boo xam ne nemmeeku daara yi lañ ko tuddee woon. macha nga xam ne weeru koor bu ñëwee bis bu nekk dañ koy jagleel genn daara. Mm-hmm. waxtaanee taxawaayu daara ji nanuy doxaleeg loolu yëpp. naka mm-hmm. jekk taxawaayu groupe Futurs Médias waaye nag bi concours alxuraan bi tàmbalee nag. Mm-hmm. muy Sénico grand prix Sénico bi. Euh, groupe Futurs Médias dañ ci amaat beneen taxawaay. boo xam ne sëñ Talla yow dara ump la ci. kon loolu ñu ngi ciy santaat bu baax président Youssou Ndour ndax bu ko neexoon du am. bu fekkoon ni nee na loolu bëgg ko fi kon duñ ko mën a def lu luñ ci am am am yéene. ak mbooleem ñi nga xam ni ñi ngi koy jàppale ci liggéey bi rakkam yi suñu directeurs yeeg ñi jàpp ci liggéey bi yëpp. ñu ngi leen ciy sant bu baax a baax ci turu mbooleem ñi nga xam ni alxuraan ñor na leen ñu ciy yëngu. waaye di profité itam balaa sëñ Talla di jël kàddu di ko jaale. mbokkam mi nga xam ni jóge na fi barki démb di coon sekk doonoon sunu mbokku taalibe ndax sëñ Abdou Khadir la joxoon boppam. moom it ñu ngi ko koy jaali di ko jaali umma islamique bi yëpp di ko jaali Sénégal yëpp waaye di ko jaali suñu xarit boo xam ni itam taalibi sëñ Fall la moom sañ Chouay bu yor daal ci wetu Adja Binta ñu jàkkaarloo moom it sëñ Amadou Diagne moom it ñu ngi ko koy jaali bu baax a baax di ko jaali daal askan wi yëpp sëñ Talla ñu jox la nga nuyoo wax nag ni ñu waajale sañ Cheikh ba mu dem bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabil alamin wasalaatu wasalaam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam mbokk fi jullit yi ñu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Euh, di nuyu sëriñ Abdul Qadir sëñ Jili Ñang mi nga xam ni tey moo ñu dalal ci plateau bu TFM ci jotaay bi muy amal ci ngoonu àjjuma euh, ñu ànd ak sunu mbokk yu tedd yu baax yi nga xamante ni ci kuréelu alquran la ñuy yëngu mm. seeni bëccëg ak seeni guddi di rafetlu tam jotaay bi ni ñu dalalee ndax ni nga ko waxee woon defe naa TFM seen diggante ak sunu xale yi dem ci championnat yi ci biti. Mm-hmm. defe naa du tey la tàmbali. tàmbali na ci mat juróom benn at ba lu ko jiitu. dëgg la saabu xale jógee compétition internationale. Mm-hmm. jële fa ndam. Mm-hmm. di ngeen ko woo dalal ko ci kër gi. ba ca Grand Prix Sénégal ki ci jiitu sax. di ngeen ko dalal ci kër gi. bu yàggul xarit dara mi ngeen fi mujj dalal maanaam moom ak soxna Mbayang Cissé yal na ko yàlla jéggal te yërëm ko kon loolu nekkul lu bees tey waaye jamono bu ni yéen a ngi koy def mhm. kon nag ñu ngi lay sant bu baax a baax di sant boroom kër gi mhm. ak ñi nga xamante ni ñoo koy jàppale ñëpp di ndokkeel nag sunu rakk ji di mhm. Serigne Cheikh ci ndam lu rëy li nga xam ni yàlla borom bi defal na ko ko di ci ndokkeel ay way juróom mm-hmm. di ci ndokkeel sëñ xaadim mi nga xam ni nee naa ko semaine bi jóob ngay sant mm-hmm. waaw te d'accord na itam ndax comme sëñ Cheikh dafa sant jóob waaw nekk ci daaree njaayeen dem indil njaayeen yi ab kub mm-hmm. kon nag moom day sant jóob semaine bi dëgg la wallaay jeexee nag mu dellu jëlaat njaayam jar na jar na weer bi yëpp sax kañ kon ñu ko weer <laughs> bi yëpp rek jëlal weer bi yëpp rek bu koor gi duggee nag sëñ xaadim jëlaat jëlaat jëlaat seen loolu sañu koo bañ <laughs> kon ni nga ko waxee hmm. xam naa pour tënk rek waaw Cheikh yàlla dafa def concours Sénégal bii passé hmm. moo jël deuxième moo jël deuxième waaw gannaaw soxna Khady Dramé gannaaw Khady Dramé ah. euh, yàlla def booba am na concours bu mu waroon dem sax hmm. waaye yàlla dafa concours booba mujjul sotti da suñu borom dogal bi concours Kenya ñëwee Mm. ñun ni ñuy doxale mooy Cheikh Mahmoud Bousso mi nga xam ne moo yor jury bi mm. saa bu concours amee ñu ngi koy gis sànq rek xam naa bu vie woone waatee image yi daan ko ci gis ko mm. moom la ñuy wax ni ko concours am na mm-hmm. mu ne nañu xool ran bi ñu fi nekkoon ñu xool ka ci gën a am yàllug dem mm-hmm. mu dem kon defuñu ko ci par parparloo déedéet dañ ñaa dajale gis ni cheikh moo ëpp ahaliya pour dem pour dem te te concours ba ca jiitu ah. uh-huh. bañ def Dubaï uh-huh. soxna Khady Dramé moo demoon moo demoon ndax moo jëloon premier kon jaadu na beneen concours bu amee ñu ne na dem na deuxième bi dem looloo ko yóbbu mm-hmm. ah, bi ma dem te ni ma ko waxee mm-hmm. sëriñam muy sëñ Xaadim mm-hmm. ak ñi mu nekkal waajal nañ ko moom tam waajal na boppam wax dëgg yàlla macha allah bi yàlla defee ñu waajal ko mu dem ah suñu borom dogal bi mu demee jël fa deuxième mu nekk loo xam ndamal Sénégal yëpp la kuy Sénégal rek bëgg nga ci waaw kon loolu ñu ngi ko ci ndokkeel mm-hmm. di ci ndokkeel tam waa daara yëpp di ci ndokkeel wa alxuraan Mm-hmm. waaye di ci ndokkeel nag surtout. ñu ngi jàkkaarloog sëñ Cheikh Bousso nee na. Mm-hmm. mu ngoog mm-hmm. di ci ndokkeel nag waa Grand Prix Senico. ndax ñoom ginnaaw yàlla. lii xale yi di am nii. ci concours bi ci la commencé di ñu koy am. dëgg la ndax bu njëkkoon daa nañ dem compétition internationale. mais daawuñ ko siiwal. daawuñ ko médiatiser. xale yi daawuñ am rang bu baax. waaye tey macha allah saa bu ñu demee rang bu baax la ñuy jël. Ah, kon dañ ciy ndokkeel sëñ Ablaye Dia. ndokkeel ci magam sëñ Moustapha Dia. ak sëñ Moustapha Lo mi nga Sénégal. Mm-hmm. ndokkee la ci waa Sénégal yëpp ak waa daar yëpp sëñ jili ci gàttal. macha allah jërëjëf euh, sëñ euh, Talla Diop bi nga xam ni mooy coordonnateur mm-hmm. grand prix Sénico am taxawaay bu ràññeeku. Mm-hmm. lu ko jiitu moo nekkoon trésorier te xam ngeen ni ma koy faral di waxee euh, suñu mbooloo yi yenn saa yi li koy faral di gaaw a yàq rek ci wàllu xaalis lay nekk. waaye moom macha allah sëñ Talla benn benn benn kayitu kayitu ñaari dërëm sax. bu fekkee génn nañ ko ci xaalis bi dana ko leeral ci bilan moom it ñu ngi sant bu baax ci taxawaayam bu rafet bu baax a baax euh, sëñ Xaadim euh, ñu nuyuwaat la ziar la di feddilwaat suñu collègue ak yéen bu baax a baax euh, ndax yéen yi nu boole dafa bare waaye seen taxawaay ci alxuraanul karim mbokk yëpp seere nañ ko seen taxawaay itam ci tarbiya bi nga xam ni yéen a ngi koy tarbiya tànki foofu ca Touba ak Mbàkke Bawol ak li lu ñu mën a teg loxo la ñun mat nañ ci seere bu baax a baax ñu jox la kàddu gi boo nuyoo itam wax ni nga waajalee euh, sëriñ Cheikh ak daara ja nan la tëddee waaw kay jërëjëf sëñ Abdul Qadir sëñ Jiili Ñang noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di nuyu mbooleem ñi nga xam ne eh, ñi ngi ci barab bi di sant bu baax a baax ci jataay bi ndax jataay yu mel nii day jataay yu am solo ndax wan ñi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi di ay jullit di ñoo xam ne alxuraan rekk lañu bëgg mm-hmm. nga wan leen koo xam ne doom lay doon ci ñoom mm-hmm. ne leen ah kii kat seen bëgg-bëgg kii kat li nga xam ne ci ngeen di sonn suba ak ngoon yàlla may na ko ci ndam te may maye na ko ko nag ca bitim réew mm-hmm. jàpp naa ne daanaa ko junju di wax ne képp koo xam ne yaa ngi jóge ci réew mi di teewal réew mi ca bitti lay gën a yell mooy li nga xam ne mooy gëm-gëmu waa réew mi hmm. te jàpp naa ne quatre vingt pour cent yi ci réew mi yëpp ay niti alxuraan lañ ay hmm. jullit lañ hmm. dañuy julli ñoom ñëpp dañuy julli ku ci julli alxuraan ngay jàng kon nag bu amee seen doom joo xam ne daa dem ci bitim réew teewal leen fa ci loolu yi nga xam ne moom la ñuy jàng ci julli gu nekk mm. te jullit boo gis rek bu julli jotee dana jàng alxuraan loolee bu ca amee ndam bu ñemee ndamul réew mépp la dëgg a ko war a damoo mm-hmm. ndax euh, damu bu fekkee mënul ñàkk mm-hmm. kuy damu nga damu ci loo xam ni aw yiw lay doon mm-hmm. nga damu ci loo xam ne lu baax lay doon euh, seex sunu donga la mm. boo xam ne sunu jarbaat la mm. ndax sama mag moo ko jur Euh, ab sët la ci sëñ Ndiaye moo jur moo jur euh, nekk sama daara mm. bi mu feree am soow lañ ko fi indi mm. yàlla dogal bañ ko fi indi li taxoon ñu indi ko fa mooy jàng alxuraan mm-hmm. euh, maa ngi nuyu bu baax a baax sëriñ bi nga xam ne man doon naa ko jàngal alxuraan te moom mu jàngal ko ku ñu wax sëñ Abo Niass mm. ma nga fa la ca Madinatul Munawwara di àggale alxuraanam ci qiraat yi ba yàlla dimbali ne ko ca may na ko ca lu yaato yaatu incha mën naa am sax mi ngi nuy seetaan mm-hmm. yàlla dogal na kero bi mu njëkkee jël euh, deuxième prix bi ci Sénico mm-hmm. dafa tombe ak abóot di soog a ñëw nga xam day mel ne yàlla da ko cee tomboole mm-hmm. mu mu yem ca loola euh, lu mel noonu nag day lu am solo mooy saa boo xam ne da ngay jëmbat da ngay bëgg fekke meññet ma ndax léeg-léeg nga jëmbat garab goo xam ne si buy meññ léeg-léeg du la fekk waaye nag boo jëmbatee di suuxat di jubbanti ba yàlla dogal meññan ma ba muy meññ fa la fekk ba sax nga watt ca ba sax mën naa am nga may ca ñeneen tuuti ukulaha kulla xiinin bi idni rabbiha hmm. loolu wax dëgg yàlla lu am solo la eh, moom damay faral di wax ne du ma bëgg nit ki doon gone ay atam bareegut lool hmm. ngay wax loo xam ne si mën naa am bu ko yàlla dimbalewul rek mu yëg ca boppam te loolu la ma koy daw Euh, sëñ Mouhamad Rachid rahimahullahu daf daan wax ne waneewu daa xaw a nuroog wanu moo tax ma ragal ko euh, te mag ñi noonu lañ bindoo woon ñoom mm. bu ma saana am sax ndaw loo xam ne daa am lu rëy lu mu def dañuy fexe rek ba xaw koo kii noonu ngir rek bañ moom muy gis boppam mm-hmm. ndax kuy dox te àggagoo euh, wax dëgg léeg-léeg wala yàlla dimbalewul mën naa am ay pakk yi day bëri mm-hmm. waaye li ñu koy ñaanal moom mi di ko ñaanal mboolem ñu nekk ca daara ja mm-hmm. mooy yàlla teggi leen bépp pakk bu nekk ci seenu yoon ba nga xam ne danañ mën a jofal si ci anam goo xam ne si lañ bëggoon lépp danañ ko am ci ñoom mm-hmm. maa ngi koy euh, nuyu bu baax mm-hmm. sama jarbaat la naam waaye dong bu dégg ndigal la euh, dong la boo xam ne si euh, royukaay la ci yeneen dong yi ca des dong bu sëriñam gërëm la mi ngoog <laughs> léeg mu yor dara sax day jekki-jekki rek ñëw daal la daan la koy xos jox la ko ndànk te du kenn du ko yëg sax loola lépp dangay ngay ni kii daa am lu muy sàkku loolee muy sàkku nag mën a aw ma ko waaye sama borom yàlla am na ko eh, benn bis dama koo gis mu yor ab jukki eh, di jàng alxuraan fekk ba mi ngi doon waaj di dem hmm. ma xool jukki bi xad wi mu toll hmm. ma ne ko seex bu yàlla dogalee nga jógee ci tukki bi hmm. am na lu ma la bëgg a wax ci sa xad wi ba mu ne ba yàlla dogal mu am deuxième ñëw xat waa ngi tàmbalee te mi ngi tàmbalee ci man jaa abil xasanati falahu xayru minha mm. foofu la xat wa tàmbalee mm. waaye boobu dama caa am lu ma ci lu ma ca gis ci biir xat wa mm. te doon gaat nga yàlla sa borom may ko ci biir xat wi da caa nekk waqul alhamdulillah waqul alhamdulillahi sa yurikum ayatihi fa taarifunaha bi mu ñu bisee ne ma waaw sama xat wa loo loo ma ci doon ma ne ko sa xat wi lii laa la ci doon wax <laughs> soo ñëwee nga ne alhamdulillah sa yurikum ayatihi fa taarifunaha jàpp naa ne. mi ngoog alhamdulilah waa Sénégal <laughs> mi ngoog euh, benn bis nee na ma yàggul dara. Hmm. ne ma loolu su laa doon wax ci alhamdulilah tamla ul mizaan. Hmm. alhamdulilah tamla maa bayna na wal ard. Hmm. ne ko ah loolu de bu ko nit ñi xamoon kon ci la ñuy dëkk. an alhamdulilah bu fekkoon lu ñuy jàll dana laal asamaan. ndax rëy gu mu rëy. maa ngi dégg léegi nga tàmm naan alhamdu alhamdu wa shukru ma an lillahi alhamdu ak shukru yëpp suñu borom yàlla moo ko moom am na ci beneen barab boo xam dafa caa wax ne qad aqbala al xayru man laa sharika lahu fi lhamdi wa shukri ñaar yi nee na yàlla kenn bokk ci moom alhamdu ak shukru nee na yàlla rek moo ko moom nekkul sirran waaye ilaana ci lu nëbb ak ci moo ko moom kon nag alhamdulilah nañ delloo cant gi ci suñu borom yàlla mi nga xam ne moo nu baaxe mm-hmm. ba nu am ku mel nii te noo ngi séentu ci ñoom ñu mel ni ñu bëree bëri ñu ngi ci réew la dëgg ñu bëree bari ñu ngi ci réew mi ñu mel nii mm-hmm. te wax dëgg yàlla lu mel nii bu fekkee ne am na ci réew mi mm-hmm. te réew mi di réew moo xam ne fii li ko sos lépp lislaam la wax dëgg yàlla den wane dana baax lool ndax lépp luñ bëgg mu siiw rek mm-hmm. léeg-léeg dañ koy wane ci jumtukaay yu mel nii bu dee jaaykat bi day bëgg lim bëgg nit ñi xemmeem ko fii lañ koy wane bu dee itam ka nekk ca leneen loo xam ne sax bokkut teg lii fii lañ koy wane damay wax ne Ibrahima alayhi salaam ba nga xamee ne dañoo bëgg lam def nit ña yëg ko dañ ne fa fa'tu bihi ala ayuni naas laallahum yashhadun dañ ne indi leen ko ci bëti nit ñi ñu gis ko kon jumtukaay bi nga xam ne si day tax nit ñi gis nit xam ne kii kat ci lii la nekkoon loola mën naa am mu soññ keneen sax te moom mii du ko yëg léeg-léeg nga soññ yow mi keneen te ko du ko yëg te loolu mooy li ëpp solo mm-hmm. mooy ngay am ñooy jëriñ te yëgoo leen mm-hmm. am ñoo xam ne yaa tax ñu góor góorgóorlu ci lislaam yaa tax sax ñu am xam mm-hmm. te fekk yow lañ xool yow lañ xool xemmeem sa doxin daal cay jaar mhm. euh, maamam daf daan am lu am solo lu muy wax muy sëñ Modou Rassir daf daan wax ne na ngeen di dànn te bañ ngóoroo donn naa ab dànn ab dànn mooy koo xam ne lu mu diir da koy jam mhm. mu ne na ngeen fexe ba doon ay dànn te bañ di ngóoroo naan donn naa ab dànn mu ne lu tax mu ne ndax donn ab dànn donn ko fetal cib dànn daf ma wóor ne soo dànnawul du tee nga reeraw yann mm. nee na ab dànn doon sa baay mm-hmm. bàyyi fi ak fetal mm-hmm. te yow daan na woo góor woo ba doon ab daan aw yan ngay reere mooy cere ju amul ñeex daan ne fa lay di woon dàggaam du tee jëggaani moom tool ya soo bayul du te yalwaani mi ngoog loolu ab soñu la mooy na xam ne yoon waa ngi nii amoon na ñu ko jiitu woon ñoo xam ne ñu baaxoon lañ mm-hmm. nekkoon ci lii mm-hmm. loola da koy dimbale na damay wax ne mm-hmm. fas yi sax léeg-léeg nga si fas wu raw woo xam ne si boo toppee ay maamam ay raw kat lañ lu ci ëpp loolu li ci doonam hmm. wal baladu tayyibu yaxruju nabaatuhu bi idni rabbi loolu la yàlla san borom wax kon nag képp ku yàlla san borom baaxee nga bokk fenn fu baax rek ah. góorgóorlu xam ne am nga ab ah, am nga sas am nga aw sas bu rëy rëy ah mi ko noo ngi leen di nuyu bu baax a baax Cheikh Mohamed Fadal daan wax rek ñu ngi hmm. ziar bu baax sëñ hmm. Aboul Baraka di leen ndokkeelaat bu baax itam ci xew-xew bi nga xam ne ci lañ jógee muy guddi gi la ñaan gi mm-hmm. guddi googu nga xam ni itam Cheikh Modou Fadal ci la gën a àddina mm-hmm. di ci ziar sëñ Abo mi nekk ci bopp njabootu Cheikh Modou ak mm-hmm. mbooleem ay rakkam mbooleem njaboot gi yëpp ba ci sañ Cheikh Awa Balla mi nga xam ni mooy caat li nga wax rek sañ Fallou daan ko wax naan euh, doomu diw moom Ah, nakal la rek fexe bay doon diw mm-hmm. waaw mm-hmm. loo laal mu nit ku la laal nit ah, ah, kon nag loolu lañu seenu ci sunu mm-hmm. doom ji sëñ Xaadim nga teewal fi waajuram tudd naa ko léegi ma nga itali ak uh, mboolem uh, ñi mu bokkal muy ndam muy ndamal uh, lislaam waaye nag lu jege lu nekk gën a yey lan lan ngeen yëg yéen ñi nga xam ni seen doom la seen jarbaat la seen lépp la lan ngeen yëg ci ndam li mm. sallallahu wa sallam lii moom bi mu yegsee la ñu koy teeru aéroport la yaakaar naa ne. waaw nataal yi waaw. waaw. lii yaakaar naa ne li nga xam ne ñun ñoo ngi koy yëg. naa ne bokk nañ nii bi mu demee Kenya. li doon Sénégal waaye dafa yóbbu woon drapeau Sénégal waaye yóbbaale pas-pasu bi. bii mu gën a leer waaw. waaw hmm. Serigne bi nga xamee ne yàlla dogal na mu dem fële ca Kenya. Hmm. dafa yóbbaale e, drapeau Sénégal. Hmm. boo xoolee sax bi nu koy jox kado bi di nga gis ne drapeau Sénégal. drapeau Sénégal moom la yor moom la yor. waaye li Sénégal yi fas ci seen xol li Sénégalais yi fas ci seen xol muy alxuraan moom la leen moom la leen euh, euh, teewaloon. foofu di mm-hmm. leen di ko di ko jongante. Mm-hmm. moo tax sénégalais yëpp jàpp naa ne ñoo bokk lu ñuy yëg ci mbir mi. ndax ñëpp a doon ñaan wala ñëpp doon ñaan muy dem ñëpp a doon ñaan. ñëpp a doon ñaan. Mm-hmm. Euh, te itam dem gu xaw a jafe la dem. jafe-jafe yam am te aéroport baak ba muy dem ak ya ca aju yëpp xëy na loolu mën naa am nga dëkk léegi jóge fi rek rek mbas mi tax na jóge fi jafe yu la mm-hmm. boole ci itam muy ndaw loo xam ne mm-hmm. dafa seqoon ak eh, ñaar fukki réew wala fukki réew ak juróom-ñeent mm-hmm. di jongante ak ñoom te ki nga xam ne moo jël première bi wax naa ko ci beneen télé mooy kooku yàgg naa dem ci ay musaabaqa yàgg naa dem ci ay rawante muy Nigéria bi muy bi moo waral euh, kooku. am na expérience am na expérience bari. Serigne Cheikh itam deuxième ba mu jël foofu jàpp naa ne taxawaayu première la. ndam ndax bu dee yaa ngi koy topp wax naa ko feneen. Hmm. muy njuumte lu tuuti moo rëcc ci làmmiñam rek. loola wàññi ay points dëgg la. njumte lu tuutu tuuti ñaareel ba itam mooy wax na ma moom mii ne hmm. nga xam ne moo jël première hmm. moom ba mu paree dafa jóg dem ndokkeel ko waxtaan ak moom kooka wax na ko loo xam ne nee na ko moom bi muy waaj mbooleem xuraaw yi nekk ci réew mi jàngkat yu mag yi mhm. dañ ko encadré di ko jàppale ci waaj waajtaay wi kon ñooñu mm-hmm. def nañ ay effort yu mag a mag yoo xam ne mm-hmm. ñu ngi ñaan Sénégal itam egg foofu mm-hmm. ànd ak loolu moom sëñ xaadim moo ko doon encadré ak xëy na ñu néew waaye eh, ñu ngi sant mbooleem ñi nga xam ne itam jàpp nañ ci ku mel ni ak ñeneen ñi nga xam ne itam jàngal nañ ko waaye nañ egg foofu nag ba nga xam ne lu mel nii bu amatee jàngkat yëpp dañuy ànd def benn bopp jàppale leen jàppale ko waajal ko comme ni Sénico concours waa Sénico taxawee mu ngoog waaw comme ni waa Sénico taxawee su ko defee kon eh, du ñàkk rek ñu xam ne eh, am na ay nit ñoo xam ne ñi ngi yëg ne alquran loolu mu waxoon ne dal inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwamu wa yubashirul muminin mbégte moomu nga xam ne wax na ko ci njeexitalu aaya bi mooy képp koo xam ne lii bégalu la bee boo nga seetaat sax xol ba xam yow foo toll yàlla ndax jàpp naa ne alquran ci boppam eh, mooy yoon mooy li nga xam ne mooy teg nit ki ci yoon wa gën a jub mhm. waaye ci la ab jullit di bégee mhm. kon lu mel nii bu amee jàpp naa ne jullit ñëpp ñoo ciy ànd ak ay waajuram mbégte moom macha allah moo tax euh, soxna Njóoba mi nga xam ne mooy yaayu suñ xaadim mii mhm. nga xam ne moom moo yar suñ seex mii keroog bi ñu wàccee moom hôpital la fanaani moom ndeysaan ndax mbégte ndax mbégte tension bi daal daal di monte ñu ngi ñaan yàlla mu sàmm ko waaw jar na ko jar na ko bu baax eh, Serigne Modou Diop mi nga xam ne mooy woy juramit mm. ak soxna maam Bousso ñoom ñëpp mm. wallaay keroog mbégte mi bég xam naa ne eh, jàpp ma ne mos nañ koo bég ci kaw suuf moo tax ñu ngi woo mbooleem sénégalais yi tam di leen wax ne mm. lu mel nii nañu ko bàyyi xel mm-hmm. alhamdulilah am na ñenn ñoo xam ne ñu ngi góorgóorlu di yëg ne lii mbégte la di yëg na lii lu rëy la ba tax na démb am na kenn koo xam ne xëy na danañ tudd turam même bu dee gënalu ko muy Serigne Mor Gueye bu nekk Thiès daf ko may ab terrain foofu ci Thiès bu toll ci 300 mètres carrés titre foncier boole ko ak jox ko 2 millions chèque bi mi ngi fi jaadu na macha allah yëkkati ko jox ko jërëjëf loolu loolu nag sëñ Xaadim moom da ñuy ubbil buntu ñu soññ ci ñëpp waaw mboolem defkatu yu baax yi mm-hmm. ndax lii ndam la loo xam ni. Mhm. def lu baax moom naka mhm. jëkk baax na waaye nag. Mhm. fii moom def ci lu gën la. def ci lu gën la ndax alxuraan moo gën a kawe lépp. alxuraan moo gën lépp. kon képp koo xam ni yaa ngi ak sa wërsëg. Mhm. te alxuraan di sa mbégte. Mhm. l'islam di sa mbégte. te mooy sunu raison d'être. waaw mooy sunu raison d'être. yaakaar naa ni bokk na ci lii gën a soññ. tout tànk yi ñu dellu ci daara ji gën a saw ci njàngum alxuraan. mooy lu mel noonu. lu mel noonu te taxawaay boobu la Sénico am. moom la Sénico am bi taxawaay boobu la am. yaakaar naa Euh, bi ñu mujj def concours bi mhm. euh, premier bi amoon na vingt millions yaakaar naa quinze millions moom mu am dix millions waaw te concours bii ñu jëm li ñu yéene mooy mu yegg vingt millions waaw ma ngoog kon loolu yëpp nag xeetu soññe la kon yaakaar naa ne ñoom El Hadj Ablaye Dia ñoom sëñ Bouba ak gars yooyu yëpp daal man maa ngi leen di soññ wallaay wallaay xam nga bu ñuy wax falen falente naafasel moo tanaafisoona mhm. njëkkante di rawante mhm. loolu ci aw yiw lañ koy séen ci lu baax sénégalais yi nag bëgg nañ lu baax lool mm-hmm. maa ngi seetlu démb ba léegi sama téléphone bi gis naa sax ñu yónnee cent franc xam nga ka yónnee cent franc ak ka yónnee mille franc jàpp mukk ne li tax ñuy tudd borom deux millions yi te moom tudduñu ko mm-hmm. déedéet lool du loolu du jubluwaay bi jubluwaay bi rek mooy eh, ñu xam ne kee def na lu rëy waaye mm-hmm. ñoom itam def nañu lu rëy même ñu yónnee mill franc ñu yónnee cent franc ñoom ñëpp symbole la buy wane ne bëgg nañ alxuraan alxuraan egg na ci seen xol kon ni ko sëñ Jili waxee ñu ngi woo mbooleem ñi nga xam ne yàlla dénk na leen dara mhm. ñu xam ne li alxuraan waxoon ne laqad anzalna ilaykum kitaaban fii dikrukum afala taaqiluun mhm. suñu teraanga mi ngi ci téereb borom bi subhaanahu wa taala suñu teraanga mhm. Eh, eh, teraanga jooju nag nekkul ne sëñ daara yi rek ñoo ci am teraanga wala ña nekk ca daara ja rek ñoo ci am teraanga waaye même ñi nga xam ne jël nañ seen alal def ko ci alxuraan ji kuy xool xoolal Abdoulaye Dia alxuraan ji ni mu ko taxawoo nii ci réew mi yaakaaruma ne delloo na ko ginnaaw de yal ko yàlla fay amiin sëñ jili kon ñu bañ a kàddu gi ñuy wax ne képp koo xam ne bëgg na ca barkeelu itam wax dëgg mën nañoo joxe numéro yi waaw 77 528 13 13 loolu mooy numéro 528 13 13 mu ngoog sëñ Xaadim Ndiaye joxeel numéro su ko defee loolu mooy numéro Xaadim Diop koo xam ne wéef la léeg-léeg day laaj mm-hmm. muy man 77 528 13 Xaadim 78 389 mm-hmm. mu euh, xam naa ñu dellu siwaat ci eh, ni nga xam ni noonu la ko jeexale uh-huh. muy xeetu soññee la boo xam ni uh-huh. Uh-huh. te sunu réew mi xew-xew yi fi am fan yii rek wanewaat na ni dañoo wara a delluwaat bu baax ci yarin wi te te yarin wi nga xam ni moom lañu gis ni boobaak léegi néewaan na lu muy yee fitna fii ci réew mi mooy yarinu daara ndax boobaak léegi dégg gunu benn yoon fitna jóge ci daara wala nitu daara te it boobaak léegi itam ñi ngi gis li ëpp ci koomu réew mi nitu daara ñoo ko yor kon jaadu na nit ki fa mu nekk yëg ni sëñ Cheikh mii kat demoon na concours siggal fa Sénégal ca Kenya ci ñaar fukki réew am ndam lu mel ni yëkkati naa dara ngir terale ko bokk na ci li gën sabab suñu jataay bii ngir laabire nit ñi ni fiikat kat buntu yoonu def bu baax la buntu yoon la yoon la woo xam ni bunt la boo xam ni li la yàlla wërsëgal nga génne def ko ci du def lu dul gën ko barkeel waaye nag am na leneen lu muy defaat mooy dinga nga soññ ki ñëwee sañ Cheikh ba bëgg moom mel ni mu mel ni kon nag naa dem ca daaree sëñ Khadim Ndiaye wala naa dem ca daaree sëñ Talla wala sëñ Moussa Lo sëñ waaw jërëjëf sañ Jili defe naa sëñ Khadim Diop moom wax na lépp mm. ndax ni nga ko waxee Eh, daara moom defe naa ku mu toqantal yar la. soo màggee dangay ngay baax rek. duñ la gis ci ay safaan. wallaahi wallaahi duñ la gis ci lu doyadi. duñ la gis ci looy xeebe. Mhm. kon daara moom loolu moo di am cosaanam. Mhm. te itam sunu daara yi itam ñu mat a jàppale lañu ci anam gépp nag ndax booy xool daara daaniki amul wàll ci li nga xamante ni mooy sunu ni ma ko ma a wax bitim réew. dañ cee xaw a beddi daara totalement kon tey bu yàlla defee lii am sunu seex mii demoon ba ñëw tey jaadu na képp ku yàlla may teraanga war ngaa comp ci lal yàlla may nga teralee ko alquran du jëmmam mi alquran ngay teral ndax xoolal ñiy génn sa njiile dem ci yeneen yoo xam ni a ah, du ma ni bon na waaye daal bokkul ak yoonu daara déedéet bu nu ñibbisee lañ leen di defal lañ leen di defal ci ay teraanga mm-hmm. dañuy dem sax bañ a réew yi dañu leen di dalal Cheikh mii tey. Mhm. dëgg yàlla président de la république da ko war a dalal da ko war a recevoir da ko a recevoir ci palais ba ndax palais bi tam doomu daaree am nañ ci wàll. ginnaaw ñi footballé bu ñu ñëwee. ak ñi basket ak ñi bëre ji. Mm-hmm. même bu ñu indiwul ndam ñu dalal leen. kii def indi ndam ci alquran nag. moo gën a yell tey. ñu dalal ko kon ñu ngi lancé appel. Mm-hmm. képp ku yàlla man man loo dara. Mm-hmm. nga teral alquran. lu seex mais alquran ngay teral. ñu ngi ciy woo ñëpp. ni nga ko wax sëñ Ablaye Dia. am na teraanga ju mu ko defal keroog bu ñu demee ci Mbàkke. altine di ko sargal. jox na ko teraanga ju am solo. te xam naa loolu ak tàmbali la waaw loolu moom ba ma koy jox daf ma neel seex lii ak tàmbali ko terale mais ak tàmbali la. macha allah yaakaar nañ leneen dana ñëwaat. incha allah kon képp ku yàlla may rek. ñu ciy soñ ñëpp ñoom sëriñ ñëpp ñoom sëñ Moustapha Ndiaye sëñ Moustapha <laughs> Ndiaye ñoom As Ndukumaan ak Ndaw As Ndaw ñoom eh, ñëpp rek sëriñ Mbuub ñëpp rek ku yàlla may teraanga rek war nga bàyyi xel sunu mm-hmm. rakk ji ci mm-hmm. teral ko loolu nekkaat soññ ñeneen ndaw ñi mm-hmm. ba ñu xam ne ñeexee ku dem bitim réew ba ñëw alxuraan la yóbboon mais ndang lam ndang noonu ciy am dana tax nit ñi tam gën laa sar sëñ Seck C3S moom it ko ci soññ li ko alxuraan bi waaw mu kéemaan yu bari di ci am loolu lu am solo la moo ne ñu ngi koy soññu ci taxawaay bi jàppale sëñ Cheikh bi ngoog démb dañoo demoon Thiès waaw bi ñuy séddale ceebu Sénico boobu waaw nga xam lam defoon daaw defaat na ko génne 600 tonnes ceeb jox ko mm. daara yi mm. euh, sëriñ bi nga xam ne ma Idrissa Gaye waaw sëñ Idrissa Gaye mu ni nit néew na mu def lii Abdoulaye Ja def mm. maanaam maanaam concours boo xam ne ci Sénégal prix bi romb na 10 millions. Hmm. bariwul loo koy gis ren na nga jël première ki jiitu première. Hmm. nga ne danaa ko jox. 20 millions plus billet màkk ren deuxième bi nar am 15 millions billet kon ñu mel noonu di def lu baax dañ leen war a soññ war leen a ñaaxaat kon loolu rek lañ ci doon dolliwaat suñ xaadim joxe na numéro ah. muy xaadim Diop muy xaadim Diop ñaari xaadim joob yëpp seen numéro joxe nañ ko <laughs> léegi Ndiaye Diop rek waaw ci bëgg a yónnee rek mën na caa yónnee man we ñetti fan laa waxoon mm. ba semaine mm. suñ Abdou Xaadim ne na Chaabaan bi yëpp dañu wax xaadim Diop rek <laughs> kon baarakallah kon xam naa sëñ Cheikh balaa muy tëj ak alxuraanul karim ndax euh, li ñu amaat euh, beneen invité ak euh, waxtu wi nii mu xate alaaji Makumba ni romb na ma ànd ak xam naa day gàmmuwaat tey ndax maa ngi sëñ Samboub mu ànd ak ak ñi mu àndal kon dafa mel na gàmmu gi mu tàmbali woon ajuma bii weesu moom lay war a yeggale te ñu ciy santaat bu baax sëñ Maodo si da baax dugg gi mu dugg ci émission bi ma Makumba mi ngi ma ko doon leeral sëñ Maodo moom dafa baax waaw baax la def lool moom ñu ngi koy ñaanal moom sunu borom yàggal ki te wéral ko ak magam xalif général des Tidianes ak mbooleem njabootu Seydi El Hadji kon daal soññaat ñëpp rek ci lii euh, soññaat ñëpp ci alxuraanul karim soññaat ñëpp ci daara waaw rawatina nag daara tarbiya yi ndax euh, jafe-jafe yii réew mi doon dund fan yi weesu dara waral lu ko ludul ñàkk waajal suñuy ndaw ndaw yi nag ni leen mag ñi daan waajale weesuwul alxuraanul karim alxuraan dana def ci yow njàng dana def ci yow yar dana def ci yow xam-xam mm-hmm. loolu ñu ngi ciy soññ suñu bopp di ci soññaan ñëpp ñi nga xam ni itam mm-hmm. ñu ngi ciy yëngu ñu jàppale leen jàppale daara yi bu baax a baax mm-hmm. ndax résultat bu mel ni barewul lu ko Sénégal di am premier Moujtaba premier la jëloon concours international waaw euh, Khadijatou Dramé daaw moom it defe naa deuxième la jëloon waaw niveau Afrique ci Afrique gi yëpp Mame Diarra Ngom sixième ci mondial yooyu nag wax dëgg yàlla am ci sa réew am ci bu mag gis ngeen ni ngeen di gisee Kenya di réew mu mag bokk ci réewu Afrique yi tubaab yi gën a fonk ko foofu ndamal lislaam la ñu organiser fa concours alxuraan ndax tubaab yi bu seen pexe juboon Kenya du am ay jullit ba ñu fay def concours alxuraan ndax bokk na ci réew yi ñu gën a fonk li fay dem ci ay touristes dem ko ci benn réew ci Afrique kon bu ñu demee ba lu mel nii am fa Sénégal am fa ndam loolu ndamal Sénégal gépp la ni ko sëñ Talla waxee président ñi ngi la ciy interpellé di interpellé suñu institution yëpp ak suñu Euh, honorable yëpp muy député yi muy conseil yi au conseil yi ñoom ñëpp rek mhm. ñu ngi leen ci interpellé bu baax ñu gën a taxaw ci alxuraan ak nitu alxuraan yi muy daara yi sëñ daara yi ndax sallallahu alayhi wasallam moo ni ñoo gën ci nit ñi mhm. waaw ñoo gën ci nit ñi ñi ko jàng ak di ko jàngale ñoo gën ci nit ñi mhm. waaw gannaaw nag ñoo gën ci nit ñi nag bu nu bëggee gën ñu nit nañ leen jàpp fonk leen teral leen euh, sëñ Cheikh nga tëjal nu ak euh, ayatul alxuraan ñu tàgg yëkkatee ko jataay bi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم ۖ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم ۖ wallahu shakurun halim aalimul ghaybi wash-shahaadatil aziizul hakiim jërëjëf kon vie euh, nga tegal nu benn kii rek ñu transition ñu mën a dalal euh, sëñ Omar Sénébolo ci ay simili yu gàtt rek bu ko defee ji alaaji Makumba ñëw yeggale li nga xam ni moom mooy euh, li des ci waxtaan wi muy mawlid boo xam ne da koy def tey siira bi moom gàmmu lay doon incha allah kon nga tegal nu élément euh, sëñ Cheikh foofu ca Kenya bu ko defee sëñ Omar Sene mën a ñëw installé wu ren li nga xamante ne mooy ñaareel bi seen concours bi nga xamante ni jogante la ci wax wàllu alxuraanu karim kon dëkk boo xamante ni jullit yi bariwuñ fa waaye seen diina ñor na leen ba nu organiser concours alxuraan bu mag def ko mu nekk concours international nga xamante ni àdduna ñëpp ciy bokk ren nag gis ngeen lu tollook ñaar fukki réew bokk nañ ci ñaar fukki réew yëpp nekk ay réew Afrique muy nga xamante ni mooy Comores Sierra Leone Somalie Afrique centrale wala nga ne centre Afrique Kenya euh, li nga xamante ne mooy Tchad Burundi euh, Tanzanie Mali Guinée Conakry Djibouti Soudan Afrique du Sud Sénégal Éthiopie RDC mooy RDC Congo Cameroun Ouganda Rwanda ba ci Nigeria mooy ñaar fël ñaar maanaam nekk vingtième pays ñaar fukki réew bi nga xamante ne moo matal li nga xamante ni ñoo bokkoon ci concours bi. concours bi nag ñu ngi ko amalee ci béréb bi ñu woowee Sir Haile Muslim Club muy benn béréb bu yaatu boo xamante ni boo xoolee tur bi sax Sir Haile Muslim Club donc mooy béréb bi nga xamante ni jullit dañ fay daje donc ñoom dana wut seen benn saa seen benn béréb bu yaatu jullit di fa daje waaye boo xoolee aussi mbokk yi nga xamante ni ñoo bokk ci bi muy kilifa yi wala ñu tax ci. waaw sant bi ñu ngi dal ci hôtel bi ñuy wax Sakina Hotel. sakina ci arab mooy dal sakina da maskan daluwaay donc tur bi sax da lay waral ni ay jullit ñoo ko moom sakina hôtel donc mbokk ñu ko moom tabax tabaxal. jërëjëf waa Régie ñu ngi leen di santaat bu baax di leen gërëmaat bu baax xam naa ñu njëkkanteeg waxtu yi rek santaat bu baax alaaji Makumbaan jéggalu itam invité yi nga xam ne am na leen ñu war a ni ma ko waxee woon léegi yeggale gàmm gi nga xam ne tàmbali woon nan ko ajuma euh, bii weesu te sëñ Maodo si mu alaaji Abdou Aziz si suñu soppe boobu da baax bégoon ci lool ba mënatul téye boppam ba dugg ci émission bi ñuy rafet loolu bu baax a baax ndax fii ñoom lañ fi nekkal waaw fii suñu kilifa diine lañ fi nekkal kon lu mel noonu am ñu yëg am ci yëg googu ba mu jaral leen dugg ci émission bi loolu lu kawe suñu jot la ñu koy doolee ñaanal bu baax a baax yàlla yokkate musal ko bu baax ñaanal suñu kilifa diine yëpp fu nu mën a nekk ndax lu mel noonu moom la sëñ Aboubacrine Sy euh, moom Cheikh Mouhamadoul Mansour moom la defoon ci euh, guddi gi nga xam ne jagleeloon nan ko Seydi El Hadji Malick ci weeru koor bi eh, santaat ko bu baax gërëm ko ñaanal ko yàlla yokk te musal ko bu baax a baax eh, Seydina Omar ñu ñëw xam naa yow moom li li taxawoon ma woole tey dañ koy bàyyi ba xam naa ajuma bi wala ba ca topp mm-hmm. waaye comme que yàlla dafa dogal nga am wàccuwaay boo xam ni yàlla dafa dogal ci yow ci réew mi réew mi am fu mu toll nga nekkoon ci administration territoriale bi ay ati at gannaaw bi nga jàngale ay ati at te gis nañu jafe-jafe yi ëpp ci yi nu am fi mu toll nii mooy wàllu yar te bi ngeen di jàngale éducation nationale lañ tudde éducation nag ñun sunu njàng sorewul waaye éducation yar moo cee jiitu yaakaar naa ni mm-hmm. enseignement soga ñëw ak yu mel noonu gis nag réew mi fi ñu toll ak expérience bi nga fi am euh, kàddu ak sa kàddu ni nga ko yàggee xam ci kàddu sagesse kàddu technique teg ñi ci yoon dana jaadu bu réew mi tollee fii nga yëkkati say kàddu rawaate na fii nga xam ni moom la fa sunu sang bu tedd bi teg tànkam di Cheikh Mamadou Mountakha mu Cheikh Bachir fàttali nag eh, nekkoon nga sax léegi maa ngi koy wax madame Ba ba mu naan jar na koon boo fa jaaraatee ñu joxaat la sa wàccuwaay ndax fii fii ñu nekk nii yilifoon nga ko yilifoon nga ko defe naa fi nga demee retraite muy Almadi gi nekk la sous-préfet eh, def ko ci ay gox yu bari ci Sénégal eh, waaye nag li nga xam ne moo nu gën a boole mooy sa taxawaay ci daayiratul Matlabul Fawzayni ci ndigalu sëriñ Saliou Mbacke mu tudde ko Matlaboul Fawzeyni ñu yëkkati hôpital Touba mu tudde ko Matlaboul Fawzeyni kër sëñ Touba gee ca Daarul Manaan bokk ci chantier yim ñu joxoon siège social ba nekk ca Bofel waaye yooyu liggéey boobu dafa yaatu ba damay damay ñaan ñu indiwaat ko beneen yoon waaye tey daal tolluwaayu réew mi lu mu gàtt gàtt moom laa bëggoon nga wax ci ak yóbbante ay kàddu yoo xam ni ndaw yi daan ci gën a mën a taxawaat xam ni réew mi ñun ñoo ko bokk te mënuñu ko séddoo sëñ Omar jërëjëf euh, sëñ Jili asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu rabbi anzili munzalan mubarakan xayru munzilin rabbi anzili munzalan mubarakan xayru munzilin rabbi anzili munzalan mubarakan xayru munzilin sëriñ Jili ñu ngi lay nuyu di la ziara mm-hmm. ci turu nag daayira Matlabul nii hmm. bi tabax hôpital bi ni nga ko waxee hmm. tabax aussi kër sëñ Tuubaa gi ci Daaru Marnaan hmm. tabax morgue ba tabax yeneen ak yeneen waaye ci suma turu bopp itam ak di la sant bu baax a baax a baax ci invité gii ñu invité euh, di la indi nag kentu ma daayira Matlabul Fawzeyni yëpp gi nga xam ne gi yow ki sa bopp liggéey nga ca liggéey boo xam ne ba nëgëni si ñu ngi koy téye ca ca wax la ñu téye ba li ñu continuer di ko continuer ki sa jaar-jaar ndax yore nga fa communication pendant des années mm. kon kenn du la fàtte ci daayira Matlaboul Fawzayni mm. mais di la nuyu aussi ci turu sang bi nga xam ne bii moom la ñuy jox jëkk a jox siyaar muy sëñ Mountakha Mbacké xalifa général mu murit mm. ci jox bu mu joxoon moom it dayo mhm. ak fonk bu nga xam ne fonk na ko mën la fausi ni xam nga ci dara moom lu mas a def ci mën la fausi ni ñun moom lañ koy àndal mhm. ba nëg ni si mu am ci cofeel goo xam ne gi am na fu mu tàmbalee ak fu mu fu mu yem mhm. ba tax na loolu yëkkatinu ba ñu ñëw war a waxtaan eh, nga ñaan ñu ñu am na nu defe waxtaan bi ñu xaw nuñ ko yóbbu ci beneen yoon mais dugal maanaam li nga xam ne tey jii moom moo moo nekk ci ci mi loola itam transition ba ma cee jël rek mooy ci Matlaboul Fawzayni laa koy tàmbalee ndax Sëriñ Tuubaa ci boppam la Matlaboul Fawzayni ni mu ko bindee weesuwul jël dëkk bi nga xam ne moom la gën a fonk ci lu mu am lakk ko làkkal boppam ñaanal yàlla boppam na mu bëgg mu mel na loole mu nun nag ñu jóg transformer ko en projet di ko teg loole nu koy transformer en projet di ko teg fu mu wékku nag ci xam-xam fu mu wékku ci yar fu mu yë wékku ci ay teggin waaye fu mu yékkatu fu mu wëkk itam ci liggéey xitma euh, alaaji jili boo ubbee ma lu fausin ba mu jeex trois quarts wu lam ci bind lépp génnul xam-xam yar teggin xitma bu fekkoon ni tey déggin woowu nun xale Sénégal yëpp yëpp yëpp am nañ boobu déggin kon dara du yëngu lépp danaan teg te tegu nag ci xam-xam tegu ci yar tegu ci teggin ñett yi alaaji su fekkoon ni kenn ku nekk tegu na ci jàmm rekk mooy xew te loolu kenn mënu koo am lu fekkee ni lii nga ma fekk fi léegi muy mbirum alxuraan dafa baawaanul alaaji ji li il faut que alxuraan baawan il faut que daara yi ñu gën leen a dooleel damay faral di wax ni man sama gëm-gëmu bopp quartier bu nekk bu ma sañoon quartier quartier bu nekk ci Sénégal am daara te te daara jooju itam ñu jox ko gëddam jox ko ak xam ndax formation wu daara kenn du ko mënta mooñaale ak leneen lu dul jub ak teggin ak xàmmee mag xam nooy waxe xam nooy tooge xam nooy sëgge xam nooy siggee bu fekkee ne dañ laa formaté ci alxuraan formal la ci daara soo màggee nit ku ni cocc ngay doon goo xam gi dangay ngay xam-xammee doo dugg mukk ci ay caaxaan amal sa amal sa réew te liggéey itam da koy gëm ndax euh, alaji ji li liggéey ku tal ku tal lu dul liggéey doo tal leneen ku talu lu dul liggéey te du te lu dul ñàkk jariñu ni ko sëñ bi waxee te daara da lay former ci loolu daf lay jox boobu gëdd ndax dafay danga koy mooñaale ndax daara yi nañ ko daan defe dañuy xëy jàng fajar bu ñu bu ñu ñu dem ca tool ya dellu siwaat toogaat ci daara nga xam ne buñ boo fa jógee ci say da ngay mel ni ko am ay œillères doo xalaat lu dul dug wut loo jariñoo ñëw jaamu yàlla toog jàpp sa njàmbur kon loolu moom maa ngi ñaan képp ku nga xam ni kii borom kër nga te nu may interpeller borom te kër yi am nañ ci boobu responsabilité ci fexe ba doom doom gone yi tout tànk yi nu jaarale leen ci daara yi bu noo xam luñ koy defee léegi ci internat yi nu def ko ci ndax léegi internat yi bari na Mm. alxuraan la jàng ba am jeex ba. Ah, am jeex na bon jeex na bon ñun ñii di wax ak yéen ñun ñii di wax ak yow ci daal <laughs> ci daara lañ jaar so dan daan école ba dan daan toog dan daan toog ci ñuy ñuy ñuy ñuy taal jàngu bi amuñu pétrole de ci taal jàngu bi lan doon jàngi suñu leçon ba ci la ñu amee entrée en ci taal jàngu lan ñu amee entrée en lu kon loolu rek lañ la ci wax xam naa voilà voilà voilà. wallaay